asalaamualeykum mbokk yi njaay àll bii moom lañuy wax annamirul aswad la tigre noir maanaam segg bu ñuul moom nag bàyyi la boo xamante ne bàyyi bu bëgg ab wéetaay la fu mu dafay nëbbatu di bañ a feeñ lu bari ndax lan couleur bu ñuul bii nga xam ne daf ko yor mu fees lool li ëpp ci ay génnam daal guddi lay doon ngir mu mën a rëbb delluwaat ca palaasam ba tax na lu ëpp ci bàyyi ma yi dañ koo ragal ngir doole ji mu am ak li muy ñàkk feeñ lu bari waaye itam moom dafa mel ni suñ borom daf koo bind ba pare xirtal ko ci muy nëbbatu ndax li ëpp ci rëbbkat yi dañoo soxla deram bi ndax der bi dafa noy lol waye dafa cher lol ak njëg ci bokay jaay fim ëpp fi ñuy dundé nak moy ci Asie ak end. façon ségg bi itam bokku na ci bayima yi nampal ab ëmbam dina tollu ci ñetti wër suy jur itam dina jur ñaari dom ba jëm ñent seeni dom itam buñu amé juroom juróom benn weer ci lañuy tambali di rëbb waaye segg yi itam seenu dund dina toll ci ñaar fukki at lum néew néew ñoom nag li tax ñuy bàyyi ba guddi di rëbb dañuy bëgg seen couleur bi jaxasoog ñuulaayu guddi gi nga xam ne li ñuy rëbb du leen mën a gis comme niñ xamee itam ne segg bokk na ci rabu àll yi dàq sote façon segg bii ab sotam dina toll ci vingt millimètres comme ni nga xamante ne ab gaawaayam dina toll ci cinquante huit kilomètres chaque heure waaye itam mooy bàyyi ma bi dàq yéeg ci mbooleem bàyyi